Euh, on ne va pas te voir pirater un artiste un CD wala benn. mais loolu ko defee def ma ko au nom de ma fonction dama ko def sama mbiru bopp la. mais mais tu es égratigné il entre sa fonction ak li ngay def. donc c'est c'est c'est trop suspect. waaw nekkoon na ministre de la culture bon mun nañ. non non il est ministre jusqu'à présent conseiller. waaw ministre mais man yoroon na culture. donc moom loolu man ànd naa ne waru ko woon def. mais léegi def na ko. waaw kon jeex euh, est-ce que yéen. yéen Omar Omar tey. on condamne au lieu ngeen toog. Mm-hmm. di ko condamné que banditisme d'état na est-ce que waraloon toogal El Hadj Ndiaye ak Youssou Ndour comme ni ñu toogee nii. Mm. nga leen nag solution bi lan la kaa leen indi saafara. non non man de. parce que yow da nga ñëw rek condamné Youssou Ndour euh, taxaw jàppale El Hadj Ndiaye alors que. mais El Hadj Ndiaye li mu wax. c'est irréfutable. non d'accord nañ. li mu wax ba tey kenn weddiwu ko. ki mu ko wax kooku taxawul fenn weddi ko. mais passé nañ loolu président président fi ñu toll mooy. ñoom ñaar ñooñu. non mais léegi xam nga lu <laughs> booy ñaan xanaa hélas ngay dem nga ne ko baal ko waaye fu mu nekk nii pour nga toog mais c'est pas c'est pas une situation ce que woo nga Youssou Ndour si situation man je jamais appelé Youssou Ndour dans ma vie musuma ko woo et tous les musiciens sénégalais nag je les appelle lu tax non mais parce que man man je me dis xëy na euh, c'est sa façon de voir non mais yow da lu personnel contre moi non jamais jamais la chose personnel c'est la culture kii ma lii à Youssou te tey bu teggoon loxoom ci loolu. maanaam dem di gérer comme ñëpp égalité de chance am. tey problème SODAV mu ne SODAV c'est une société autonome. mu bàyyi ko les gens les artistes euh, exercent avec plénitude leur droit bénéficier wu des des retombées de la de la culture à travers ces collectes ak yooyu mais man du ma mus a wax Youssou Ndour a fait ceci a fait cela man du ko def pour lan. mais yow da nga jàpp ne Youssou Ndour dafa gàllankoor culture Sénégal. mais mais mais mais Tunkara yow loolu xam nga ne gumba yi sax xam nañ ko ñu ñu ñu ñu je m'excuse tar terme mais loolu sénégalais bi lambda bi gën a baal boo demoon ba fongale mi man a grand bi on a fait les quatorze régions. on m'a taxé bi foo dem qu'est-ce que les artistes mm-hmm. man c'est que man xam nga ne la. Ah, mais Youssou nan la gàllankoor la culture gannaaw loolu leeraloo ko de. Euh, euh, je, je vais te dire une chose nga tey quand il a été nommé ministre de la culture il a il pris ses hommes qu'il a mis dans les les les institutions ay grand théâtre monument de la renaissance <coughs> euh, SODAV SODAV bi c'est un pilotage à vie euh, donc euh, euh, monument de la renaissance Sorano yooyu yëpp infrastructure yi nga xam ne tey moom la acteur culturel yi mooy seen lépp mooy seen teranga mais c'est entre ses c'est lui qui décide il a mis ses hommes ku bokk si gént gi naan si meew bi. est-ce que décision yi baax na est-ce que décision yi. ce ce sont des déci non décision moom yi mu jël baaxul ba pare am na benn loo xam ne discuter nañ ko avec Thione mm-hmm. mooy quand Thione dit que c'est la faute à Youssou Ndour mais Sall mi ko jox loolu mais man je lui ai dit que. Mm. quelque part il a raison. soo ñëwee ci kër ay baykat nga ne leen ma jël benn baykat mu jiite leen. Mm. mais baykat boobu ñu jël moom moo waroon a am largesse ak élégance ak générosité ne baykat yi ñëw leen bokk jiw bi ñëw leen ñu bokk lépp. Euh, man nag Youssou Ndour <coughs> euh, grand Idi. waaw mais man. <coughs> damay intervenir. Hmm. ci benn côté Tounkara dafa mel ni yow. Hmm. je je pense comprendre. Hmm. Euh, culture ak fi ñu ko commencé ak fi mu jógee. gis nga dama lay raconter une petite histoire ci Youssou Ndour quand tu l'as eu 14 ans man mii suma kër la nekkoon. 14